mbokk yi Fallou Ndiaye moo tëgg bisu le 31 décembre diggante jóob 2 ak ki nga xamante ne bii mooy caatu ngéwél waaye combat yam ca toftal yëpp ay combat yu neex ya bokk na ci combat bi nga xamante ne bii moo war a ci diggante armée ak ki nga xamante ne bii mooy Maama Lamine armée 2 la ñu jàkkaar lool mu nekk ci wàccaayu combat bi ñu fas yéenee waxtaan ak moom ci fan la toll ci combat bi armée ñu ngi lay eh, maa lay fay grand frère di la jaajëfal di la nuyu di la jaar bu baax a di la tamit ma ma sa coono ci déplacement bi quoi waaw aussi tamit di nuyu waa Parcelles fekk nii mu indi set mu nekk sama siis quoi di indi set di sant waa Parcelles 1 ba 26 ans di sant tamit aussi waa Bawol rawatina waa Réfane diggante ak Mama a nekk combat ba nga xamante ne bii combat bu metti lay doon. waaw waaw tamit ñaari xale. ñaari xale waaw aussi tamit di sant seen papa Terry borom jaamal fi nga fi ne def émission bi quoi di leen waaw ah, di di ko sant bu baax moom di ko sant bu baax quoi waaw comme euh, di sant tamit aussi sama ñaari waajur ru baax baax muy sama papa di sant tamit sama yaay di sant sama tànta waa di leen wax masa coono tamit waa ñoo ngi waaj comme Mama Lamine comme adversaire comme yeneen adversaire yi rek. yee adversaire la comme yeneen. waaw. am na lu leen wutale moo ci gën a cuune sax. dégguma. adversaire yi ma bëree ñëpp moom moo ci gën a cuune. ànduma ak yow man xam maa ne man. lan nga ne a cuune. waaw koo xam rek vraiment biir ne adversaire yi ma bëree ba yi ma jàll ñoo gën a daas Mama Lamine. adversaire bu adversaire ni Mama Lamine yaa ngi koy soog am sa carrière. waaw moom ma gis quoi man dama am mbapat man dama am mbapat dama bëri taay bu ne laa bëreel wallaahi wal asiim kumbaay maa ko jëlee sama bopp. nekkul combat boo xam ne dama koo. fa Maama Lamine yaa ko jëlal sa bopp. maa ko jëlal sama bopp ban ma ko proposé tamit aw ma ci ci saaga te gém-gém gu am ci man moo nekk moo ga ma am teel gën a raaw man damaa gém ni bari dama koy duma dama dama koy duma dama koy daan. Maama ngay wax. barke alxuraan damaa gém ne lu xaar wecc moo moo fi mu duma ko daan ko. yow arbitre moo la waaw maa ngi dégg muy wax rek nag maa ngi dégg muy wax te daan naa muy wax mais combat bi du wax jëf la. bu ndox arbitre bi wàccee du man maa koy buusal meetar barke alxuraan bu doxee ci sa kaw wallaay wala suñu dajee bu doxee wut si la mu ñu dajee bu ngeen dajee dajee man du ma ko daan ko combat bi combat bi du wax ju bëri parce que daa am lu tax quoi mamu lamin mamu lamin mamu lamin mais yàlla baax na daal bu la 31 dina xam ne gaynde muur gaynde gaynde jinaa gaynde muus du moroomam. gaynde ginaax du moroomam. gaynde ginaax dina xam ne bu suur baa gaynde muus du moroomam lu mu gànde gànde gànde gaynde ginaax gaynde muus du moroomu gaynde ginaax. non parce que daam lu mu yaakaar te la li mu yaakaar amul. dafa pour yow dafa am fu mu ko teg. yaa te fu mu ko teg lépp dama cee toog damaa pare ci côté yëpp. da nga bëgg wax ne koo teg ci missi. non maa koy dégg mu ne fii di wax yenn détails yoo xam ne ça amul sens quoi. man entraînement laa gém ak sama fula sama fayal bu surwaa mu duma ko daan ko la mu yaakaar ba wax ay turu papa ak ay turu ndey la ma ko laa koy waat xam na sama turu papa sama turu yaay yàlla na ma yëkkati ba taxaw dooma gi suuf barke alxuraan ñëw jàpp jàpp daan damay dox ci ko daan ko incha allah du woon yoon sax ma non Mama Lamine daa xamul quoi parce que damaa seen ay interview am daa gëm damaa gën a dugg ci combat bi dafa maa gën a dugal ci combat bi man góor man góor du ma yàbb góor du ma yàbb kenn du ma minimiser de di ma daan non amul man mbir laa. en tout cas li ma jaaxal nee nga góor du la yàbb mais nee na yow taxoo ko jóg sax da bokk ci carrière nii rek nekk ci yoonam mu fas yéene laa faxas jàll ci leneen fi mu teg bëtam du fii te bu day dugg parcelle daan la duggaat. daa dugg parcelle jëlee fa defet mu ñëwaat ci mu écrit. dafay amaat. day fayu si dugg si waat. man bir na may bir na may lu gën a lu gën a garaaw moo fi moo nekk ci man. lu gën a garaaw moo nekk ci man yàlla xam na ne incha allahu rabi jafe bi fi jëlee fa jëlewaat maa la ko wax. maama Lamine li mu ne fi di wax lépp bu suur baa ngalan na dégg li mu wax rek. géew ma ne ay kilo man li ma la wax rek man géew ma bu fekkee li ma la wax ni géew ko yàlla na ma daan. ar alxuraan ko boo si suluwee damay digg sama taxaw du ma xeex moo pare doo koo song daan ko du ko song daan ko ba pare doo koo song daan ko maama ne am na combat de bu mu ne rek damaa tiddi na le wala mu yaakaar damaa jël combat bi ndax ay coono non damaa bay grand combat jël ko ah, kon bu doon léem laay wére kon du ma ko jël li ma def ci lamb dafa ko ci lamb barke barke alxuraan damaa bay grand combat jël ko. proposé ko. nga xaale bu juboo grand combat war la xëy na mu promoteur promoteur xëy na amul date affaire yooyu quoi. ñu tax tax instant bi ñu kon xam ne jël ko man bu doon lu yom laay wér wala man wala man ma aw ma fu ma di somb du ma jël Mama Lamine waaw mais daa xam ne dama ko dama koo jël pour daan ko jëlu ma ko pour ay wax. boo ñëwee xeex si. nii sax nga xam ne dafa maa dugg ci combat bi. dafa maa dugg ci combat bi. <laughs> yaa ngi bëgg. non oh, dugg ci combat bu baax. dafa cee gën a dugal. kon fu toll nii da nga koo bu la xat sulee dina xam ne basi góor a koy basi góor a koy béy dina xam ne bilaa yoon aussi séntu asamaan diiru boo xante. kon saaga maa la ko wax. combat combat boo xamante ni bu diggalee boppam. dinañ dinañ bu diggalee boobu saa baa baaraan ne fii ay affaire man kenn ma conseillé kenn du ma conseillé ci làmb. arbitre suuf damay tax digal sama bopp taxaw faayat ak moom duma ko daan ko. Ah, kon jeex na kon jeex na loolu neex na bu mu dellu man de maa la mën a xam ne arbitre dellu ginnaaw man man barki alxuraan yàlla xam ma ne maama leen du ma ko bisuloo benn un centimètre ci ginnaaw bu ma ko defal su ma koy defal yàlla ma daan. sa bopp de mbër. parce que daal lu ma ne man quoi moom daa fu ma teg sama bët mais du ay maama Lamine. saa ma daa ma yaakaar baw dañ maa yaakaar Parcelles Assainies kenn njaay loo bari ñi kon mu nekk ñoo xam ne damaa bokk ci dëkk bi kon du yoon may ne fii xam nga tamit maama la boo taxaw sama kanam ma am lu may sant maam leen lu may xam la xalaat ci maama Lamine ma teg sama ngëm sama waay. yee non non du tëdd sax di xalaat ay ku moom rarement laa koy seetaan. mu ne bëri ba nekk ca moom sóoraale. wallaahi wallaahi wa taalaahi maama Lamine aw ma sax temps toog di seetaan ay ay comme li muy bëri nii aw ko aw ma sax temps boobu. mais loolu du erreur ci yow. non parce que maa xam ne ma ne ci man te bu suur baa nga may sippi sapo nga may def mbir naa ba ci may la man mbir laa. kafuma reexuma ci lu ma nekk nii kafuma ci reexuma ci lamb ma ci dugg ngir bëgg a titre samay ñaaweel ak samay xarit ak samay anandoo kon kafew la du ma kafe bés du caaxaane bés te sama mboroomu góor du ma du ma yàbb du ma yàbb du ma yàbb maama Lamine. maa amoo doole liggéeyoo te soufflé la fu bàyyi benn jooy la ne. moom mooy bàyyi xel moom mii dem tourne di di lijjanti ay tourne ay turu bàyyi lijjanti fu may la ko di entraîné. te man bàyyiwuma sax xel mosuma def bu commencé ba léegi may xam fu moom ci li mu nekk man concerné ma xam lu ma la concerné nekk liggéey ba suur ba ma du ma ko daan ko mais toppatoo ma ndey tur waa papaam toppaloo ma fu mu nekk toppatoo ma fu mu nekk di man sama bopp laa gëm kon moom yaakaar kon moom ma bàyyi xel bu jour ba day xam nag lay comprendre le talent sureetul. <laughs> su ma déggee nga waxee sàng moom daf laa gën a branché ci biir combat bi da ngaa gën a dugg. non sérieux quoi amul lu mën a wax amul loo xamante ni duñ ko mën a wax quoi. xam am na loo denc ci sa biir jamono. exactement li mën a wax li a wax nii mi li ci ko maa jaay lay comprendre loolu moo tax a wax lépp na combat de am na bés ci biir bés yi. yow tamit am nga combat bu mag. maama maama maama lan nga combat xam na ne bii moo nekk sama dixième combat moo nekk sama dixième victoire maa la quoi. bii mooy sa dixième combat. moo nekk sama dixième combat moo victoire ci Mama Lamine. dama koy daan dama koy duma dama koy daan. waaw exactement quoi waaw. parce que dama koy daan ma ñëw confirmer am am sama am victoire foofu laay waxee quoi. mais jum amu waaw. mais hmm. dama la ne bi mu fi jëlee du juum dañ koo duma daan ko dañ koo duma mu jël ku daw arrière daw daa wéri dañ koo duma waaw ban mer sama romb nga da la dóor ngay daw poto ko dóor ku benn ku la ko dóor mu yàq lamba mu daw daw fépp ñu jëpp da daan la man xoolal samay combat yi ma bëri yëpp maa ngi dégg mu ay combat am day gaaw moom ay combat am ay combat am booy combat day dem ba bëgg a day dem ba bëgg a tax gars jël temps samay combat boo calculé lépp laa la wax mu du cinq ay secondes laa lay daan mais combat bi dama taxaw bëgg taxaw ji faay ak moom bu dee deux heures taxaw naa pour moom incha allah. lu ko raw ngay gën a gis yow xam nga bu baax man man mbër laa. te waneegu ma sax sama waneegu ma sax sama bëree te lu garaaw nga gis 31 décembre incha allah barke arxuraanul karim bu boobaa la la mbir mi mbir mi mooy ñëw la 31 allah. mais mais dama xam nga ne arbitre ku jëlee combat am xeex da ngay day euh, ku jëlee sama combat mu xeex mu neex la di xeex mu naqaree di xeex waaw mais koo xamante yow loxo yi daa gag koo xamante ni loxo yi ni la def. mais bokk na maak moom maa ko génne xale. barke salaatu faatee maa ko génne xale xale maa ko xeex maa ko doon bëree. non Mama Lamine baat na ne taxu maa jóg loolu am na mu lay wax. <laughs> yàlla baax na. le 31 soreetu ci sa no boo sañoon combat ba nekk suba suba suba quoi damaa bëgg a yegg damaa yàkkam di jagal ko Mama Lamine ba mu xam ne man man góor laa saa man góor laa de bilaay walaay man góor laa du ma tapet du ma ragal. kooku kooku saa yi mbir mi tax comme ay koloo xamante ni sax mooy lool waaye yow non kooku kay saa foofu rek muy def ak muy def ak. mais mais Fallou tëgg bis bi tëgg leen ci bis bu mag bisu 31 décembre. di bisu feet xam ngeen li muy xaar ci yéen ci mobilisation. waaw moom sunu papa la naa ne samay combat yëpp yëpp moo ko dégg quoi sama dégg dama ne ko dem na ba nekkatul ay affaire promoteur quoi daa diggante doom ak papa la. moo tax kon bes ba du question du bésam man damay amee sama bés la quoi parce que lu ma lu ma jot defee ak lu ma fa andi ci mobilisation defaluma ko sama bopp laa ko defal kon dama ñaan yàlla sori ñu jàmm ba yaakaar gi am ci ñun ba mu teg ñu ñu ñaane suñu borom yaakaar gu may tas quoi ba lépp lu mu seen ci ñun rek ñu waaw ngi ci tamit aussi waaw ñoo ngi ci bi incha allah rabbi pare nan balaa yow aussi pare nan boo gisee waajtaay ak boo ak ak affaire yi nga xam ne ñun pare nan quoi wax dëgg naa la bawol maa ngi di woo bu baax a baax waa bawol rawatina waa Réfane Boox Rémao Touba Toul nu ñoo xam ne ñun drapeau boobu moo ñu ñor tey doomu bawol lan waa Parcelles Assainies nag waaw ñu ngi leen di woo bu baax rawatina set gàmm di fi laa dégg waaw di leen woo di leen woo bu baax a baax a baax xam ne tamit combat bi moom waaw waaw ñu ngi nen ñoo di jàppale di di seen doom xam na combat bi nekkul combat boo xamante nii bu bu bu am importance la ci ñun quoi combat bu nu fonk la quoi kon maa ngi ci waaw kon maa ngi ci woo ñëpp ñëw waaw adversaire bi sax adversaire bi moom saa yi dama ko adversaire bi moom garaawul ma sama waay maa ma Lamine su ma wax ci moom sax fi mu toll nii nii sax su ma xool day xaw a kii quoi man bëgg ma wax ci moom sax. non sérieux parce que maa xam ne jël na ma mais xamuma jël na ma mais xamuma Modou Lo Modou Lo daa suñu idole la ñu ne ci kappaaram bu doon gudd ak réy tax kon du jël waa des saa kon xamul moo tax ma ne xamuma moom. te bu lu saa dina ma jox cër dina ma respecté dina ma jox cër dina xam ne carrément man mbër laa waaw di woo tamit som papa som papa amu ma fayam som papa maa ngi koy sant bu baax baax baax nekk na waajur boo xamante ni moom macha allah quoi combat bi mun naa ne sax moom laa biral combat bi barke alxuraan non parce que daam foo daam daam loo xamante ni ma yàlla baax na quoi am lu mu waxtaanee ci waaw wax digg naa la sant naa ko gërëm naa ko sama naa ko gërëm naa ko. moom ngay bëri combat ko wax. le 31. wallaahi nga ko ndam. maa ko wax incha allah. mënu ko. mënu ko. jamais. di tamit sama yaay jima ma jur. di ko wax ma sa coono. ne ko lépp ak lépp lu mën a doon rek. yaay booy bëgg a cotraire rek la rek lii nekk yi parce que daf lam dafa metti nga jur doom war a jàkkaarloo nekk war a dem dem ak ay loom du lekk du naan te mu nekk ci jigéen li góor mën a gérer sax fekkul jigéen kon yaay booy na xam ne rek lépp day ñëw incha allah rabbi waaw na gën a yokk ñaan bu baax di sant sama tante bu baax a baax aw ma feewam di sant tamit suma waa famille ñëpp di woo Baye Souley jaaw di ko wax Baye Souley jàpp lañ ci combat bi bu baax a baax a baax ñoom daa duñ jool sama bopp Cheikh Neymar Pape Moussa mention spéciale ma fay am gis naa ci tamit yéen waaw di sant tamit aussi xam ma fi yaa passé assaini yëpp a waa Massagueul Tapé aw ma seen waa Kër Ndiaye Lo aw ma seen bu baax di sant tamit waa Bargny di ko teg sama loxo a baax a a ñëpp di sant tamit Sayer Ngom taxaw na ci kaw maa ko sant bu baax a baax Sayer Ngom. yee falu sama xarit Fallou Galas sama xarit sama doom yaay maa lay sant bu baax waaw di bëggee tamit waa Kolo waa Kolo baan ñëpp ah maa ngi di woo bu baax a baax a baax tamit aussi ah. ah da ko bu mag bi waaw mafia bu mag bi nag aw ma seen fee quoi waaw aw bu mag bi ah di wax na gars yi saal ñu ngi waaj te bu ñu duggee le 31 dinañ xam ne incha na ak i feem maa la ko wax maa la ko wax di woo tamit sama papa mbay Diouf sama papa. Mbaye Kabiyo Mbaye Kabiyo maa ngi koy woo di ko wax ne père gën a jàpp ci combat bi jàppal ma jàppale ma ci café bi yi di sant tamit Tafatine borom kenn jaayloo mention spéciale Tafatine borom kenn jaayloo sama papa sama xarit maa lay ñaanal suñu borom gën a yokk sa xewal gis naa tamit ni mu sonné ci combat bi ñu ci taxawee suñu Saliou sama xarit man ngi koy sant bu baax a baax ñoom Xaadim Duudu Sané ñoom sin jëliin xam nga ñoom ñoom Badafayen gaa yëpp daal ay petit kéwél gaa yëpp bàyyiwuma kenn di sant sama sama ñaaju waat yu baax a baax a baax di sant waa Touba bu baax di leen masaw coono tamit ci déplacement bi tamit aussi quoi parce tamit wax dëgg naa la tamit ngeen xëy tamit xam nga ne ci yaam ngeen a xam quoi kon ñu ngi leen di ñaan yéen a xam lu ngeen bëgg suñu borom defal leen ko incha allah parce que tamit kon ma wax rek liggéey moom bu mënta nekk rek da koy fonk jox ko cër looy saa doon tamit du xëy xëy neex waaw day metti boo nga récupéré ko boo ko ba la nga boo ci amee te nga mën a xam te ni ko mën a ni ngay mën a orienté sa sa ko mën a téye kon yàlla a jàppale waa di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di sant waa Parcelles Assainies gépp daal rawatina fi ma yeew sama maman mère Fatou oma feem bu sant ak Baye Fall Baye Fall Baye Fall jaay kotu café oma feem armée sama trono armée boox te mu dëkk boox ko sant bu waaye di woo tamit aussi tamit euh, comment dirais-je Motine doomu yi doomu ndeyu ñaaxarañ loo maa ngi ko bu baax mote na di wax tamit ñaaxarañ loo waaw comme ñun ay doomu bawol lan tamit suka ñu ngi la woo ci combat bi tamit bu baax baax no ci mën a tege sa loxo ñaaxarañ loo ñu la ci woo nga jàpp ci affaire yi quoi ci béek yooyu waaw di béggee ñëpp di gërëm ñëpp ah jaajëf mi ngi noonu armée ngi noonu mbokk yi rendez-vous le ak Ndiaye Production